xam na ay étranger la ñu nekk bitim réew wala ñu nekk ci biir réew mi ñooñu amuñu sañ-sañ daal di ciy participer maanaam ku nekkatab sénégalais wuroo see participer journal bi nee na loolee moo tax jamono ji coow li nee na coobay ci mbir mi yéen a kaay gi de la témoin daan nañ xëy ci port bu ndaayaan bi nga xam ne liggéey yi niki démb daan nañu koy doora journal bi di Source A nee na lu toll ci 3000 milliards la ñu teg ci taabal ji ngir liggéey ko lu toll ci 26000 emploi dina ko amee état bu Sénégal pour cent DP woon lu toll ci cent yéen a kaay gi de Ndayane lu toll ci mille deux cent hectares la quatre cent koy liggéeyee maanaam dinañ ko liggéey ci lu toll ci ñeenti at journal bi nee ñi nga xam ne ñooy impacté yi maanaam ñi nga xam ne ñoo ci loru balay mois de février di jeex dinañu leen fay seen xaalis njiitu réew mi di Macky Sall ci lu jëm ci projet monolocale bu Casamance nee na Ousmane nitu fitna la yéen gi di réew mi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu fan yi nga xam ne moom la génn ndax la nga xam ne moo ko waral mooy contentieux bi dox diggante Senelec ak Itok compte Senelec yi ñu wax ni nañu ko tëj syndicat bi ëmb cadre yu Senelec ñoom nag ñoo ngi dànkaafoo nee nañu stock bi nga xam ne moom la yore léegi tey mu jeex te bu boobaa black out mooy am bu ci njiitu réew mi di président Macky Sall waxu la yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na jàngalekat yi jamono ji mer nañu ba mara tali dañoo bëgg dem ci ab gréw yéen toll si ñetti fan yoo xam ne bi ñu ko xayma junniy nit amee nañu coronavirus bi enquête yéen a wax na ci scandale lëmbee jamono ji ak nag lu jëm ci directeur général bu ak ki jiite trésor public ñu doon wax ne dañu ko dàq Abdoulaye Daouda Diallo ci enquête yéen a kaay ko ba tëdd sa naaj wa yéen a kaay gi bi nee na en tout cas li réew mi bëri ay détournement am na ñoo xam ne détourné nañu réew mi maanaam sàcc